te ñu ngi koy bàyyi muy dugg ba léegi. mu arrêté juste pour préciser. c'est c'est l'arrêté 77 17. ok ñu jël en 2005. président Wade c'est un arrêté interministériel du benn ministère rek moo ko jël. Mhm. président Wade validé ko. donc arrêté boobu c'est toujours d'actualité. Mhm. donc lii dugg yëpp. gars yi ñun dañ doon juum sax di def naan euh, c'est c'est c'est des mais c'est pas des importations parce que lu ñu importé c'est légal parce que douane du ko autorisé wala boog amul note buy wone ni que l'arrêté là a été levé mm. donc du coup ñi koy def yëpp dañuy dañuy la preuve euh, buy ñëw sax du ñëw day day ñëw par des voies détournées ñun on a des informations que comme quoi des fois mu dugg see caaro yi bon par les pays frontaliers mm-hmm. ñu ko cité fii sur le plateau mais mm-hmm. xam nañu zone yu muy jógee donc li ñuy war rek mooy lancer appel que autorités yi jël le taureau par les cornes parce que li ñu doon bañ en 2005 loolu moo nekk di ñu ñu commencé produire on était à 7 millions de poulets su mm-hmm. a fallu que ñu tëj pour que en millions de poulets produits ah oui. que aujourd'hui mën nañu reprocher lépp sauf professionnalisme. professionnalisme il a un certain professionnalisme qui est là lépp yembul lépp euh, rafetul am na loo xam ne war nañ ko gën di ko améliorer en termes de formation mhm. mais aussi en termes de protectionnisme parce que boo xoolee filière avicole bi ñu koy wax gars bu ñu gis ni ginaar bi kese la c'est filière la bi nga xam ni bu ñu ko toppatooyee na mu waree dafay entraîner dama koy wax toujours ñun éleveur ginaar yi du ginaar kese la ñuy def dañuy def ginaar certes mais en amont kii jël nen bi di ko toj ay emploi lay créer mhm. bu ñu jëlee nen bi toj ko def ko ay poussin vaccin yi ci war vet vétérinaire dañ koy indi mhm. mën nañ ko liggéey fii ISRA euh, ITA astafurla mhm. te tey laboratoire boobu euh, dooleeluñ ko loolu moo waral nga gis aussi yenn feebar yi donc yooyu yëpp c'est des niches c'est des emplois que ñu ne déet ne waaye bu ñu jógee foofu dem ci production ci filière avicole bi boo jëlee benn saaku aliment kese benn saak saak bu nekk am na 30 kilos mboq mboq boobu yëpp importation la mais ça veut dire que quelque part a xaajul bay doy. Mm. li ñuy soxla ñun kese ci filière avicole bi. Mm-hmm. xaajul bay doy pour euh, pour suñu filière donc y a travail encore à faire. Mm-hmm. et a des emplois des centaines de milliers d'emplois créer. Mm-hmm. am na te li may wax ni yëpp maa ngi dem ci ginaar mais avant bu muy mët bu muy egg sa table wala sa assiette. ñoom am na lu ñu koy liggéey il faut mu dem ci abattoir yi abattoir yi mi ngi commencé woon boo xoolee euh, juróomi at ci ginnaaw abattoir ginaar amu fi woon kenn moo ko fi njëkkoon def muy Sédima pour ne pas faire la publicité ñoom ñoo ko njëkk def mais après dañ dem ba benn mois ñu tëj maa ngi fàttaliku bu baax abattoir boobu bi ñu koy créé c'était dans la zone industrielle des HLM e. mooy jamono Mister Poulet seen motoor boobu noonu lañ ko tuddee wala boobu mm-hmm. le produit bi fa doon génn noonu lañ ko mm-hmm. tuddee woon mm-hmm. donc boobu ñu ngi nekk frais ay tout tànk lañ mais ko xàmmee woon nañ donc entre temps abattoir boobu doxatul mais actuellement nii y cinq six sept abattoirs qui sont en train d'être en place donc et c'est des lu may wax ni yëpp c'est bon état bi tëj na mais li may wax ni yëpp c'est des privés comme lui et moi qui avons mis notre argent dans cette affaire là donc c' est parce que tout simplement dañu bëgg xam nañ ni fii ginaar fii dox donc dañu bëgg ñu mais ñun mm-hmm. aatuñu compétition boobu parce que ñoom dañ leen di subventionné pour produire dañ leen di jox xaalis mm-hmm. pour dooleel leen dañ leen di jox mm-hmm. xaalis ci formation dañ leen di jox xaalis pour mais fii pour nga am financement ci banque sax da doobee bëgg de wala ñu laaj lay yoo xam ne par exemple ñu laaj sa kër y a des qui ñaar fukk boo xoolee li nga ciy fay da nga ciy fay par exemple benn 0,5 wala 0,2. Mhm. ñun dañ lay lebal xaalis nga fay 10 ak lu ko teg des sax da koy ëpp. dañ leen ñaar fukk bu ne mën na dem mën na mën nga fay benn benn benn moment mën nga fay ñetti dërëm. Mhm. c'est trop. donc loolu pour que filière bi compétitif day xaw a jafe. a